xam nga li tax senegal xaw doy waar léegi mooy lu la waaye di wax ci mbedd mi la ko jële lu la waaye di wax léegi rek ci mbedd mi la ko jële te waxu mbedd góoru yàlla gu gu war na ko fi mën a bàyyi te seet suuf si bopp doole mu teg ci xam-xamam waaye gis nga réew mi dana mbir dana firiir ba ñëpp di ko wax da xam ni tobbitu mbedd la rek saxul fen waaw moo tax bari na sax lu fi ñëw di yàqu-yàqu te loolu moo ko sabab dégg naa ñu nettali ci lu xaw a reelu ci Blaise Diagne am ñaar ñu dem sosal ko wax ni gants yu weex yi mu daan sol loxo yi dafa gaana wër di ko wax wax jay law di riir ba ëpp yi loxo ñoom ñaar ñu ko sosoon wéetaat di laaj ndax yëf yi dafa fa nekk dëgg wala déet waaye bari lu ñuy wax ci réew mi te ci lu mel noonu la sababo waaw moo tax ku yóbbu di ci bàyyi xel loo mën waaw yàlla itam du fo lan la wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam del vérifier fi ngay jële say xabar su nekul lu wér so ci sukkandiko so terelé da ngay juum in jaakum fasiqun bi nabain fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalati wa tusbihu ala ma faaltum natimin waaw del sukkandikoo say xabar de ko jële fu wér yi nga yu mel noonu loolu moo taxoon xudayfa xudayfa ni na jullit yi protéger yonent bi sallallahu alayhi wa naka lañ koy protégé mooy nuy topp ñi xibaar yi ñu koy indi di ndax fa muy jógee wër wala déet daa wax na dëgg kenn du bàyyi sa kilifa mu sukkandiku ci waxu nafiq ah kenn du ko def maa koy wax ni ba ci ni ñu tëralee renseignement léegi e léeg-léeg bu amul lu wër rek faaw nu wuti luñu fa tek léeg buñu amul lu wër rek faaw nu wuti luñu fa tek ah té le góor ga waxoon ci ca Misra booba dañu def révolution ci kër révolution ba police bi moo ko amee renseignement yi ñoo ko amee mais nu dem ci ba ku am koo mere rek dem ca police ba wax ni dafa contre révolution ah génn góor gu jaamure parce que fii bëggunu ko jàmbure kuy toppatoo li ñëpp di toppatoo la bëgg xam sa bopp bu la taxee jàmbure nag bëggunu ko góor ga xam naa am ku ko mere fa mu dëkke rek mu dem ca police ba ni leen dara noppeem gi bañ révolution bi rek moo ko sabab waaye la neen sababu ko ndeysaan mu liggéey ba wàcc tàkkusaan ak coono yaramam ak ndeysaan lal pliyaanam bi ci ëtte këram ni na wér gannaaw gi balaa timis gee jot wa jékki rek nu nu fëgg buntu beeg fitna tëggu ko fitna mu jékku ubbi ko rek waa police bi dugg seeg seen xaj yi di baw xaj yi baw tànki gojo yu kërën kërën kërën mun leen mais lu xew ñu ne ko anta biddu sawra أنت ضد الثورة ولا أي ثورة ذيك الثورة الناصرية ونا الثورة بكلاب رجال بوليس <laughs> هاي آه، لما تجاوح جاية انتظروا الثورة الثانية إن شاء الله آه، يقع ده كونتر ريفولوشن بان بان ريفولوشن انكو بكمال عبد الناصر ma ne ah révolution ba xam ne xaj yi ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy gunge nit ñi <laughs> révolution kay xanaa conscience moo koy def ah am lu sa xol nangu sa jikko nangu ko sa xel nangu ko ah loolu kay mooy tax révolution ay révolution bu dee balaa sotti xaj yi la ñuy jiital ma ne boobu révolution mënuma cee d'accord ba may xaar mooy bi yàlla di andil boppam commissaire bi nii kii ray nanu ba nu dee nañu dellu ak li mu nu wax buñ fi defatee ñetti minute dara dootu nu jar waaw ah, te loolu moo xew fépp ku mere nit rek sosal ko am na lu ma ci bind sax ci waxtaan wala ñu jëm fële ci jataay bi xam naa bu ñu ci yëggeeg jàmm rek ah ñaari baat ñette rek ñu fàttali ko eh, rek xam li bés bee ko laaj ndax ci turu sëñ Babacar kër radiyallahu taala anhu lañ ko defee Eh, nu bàyyi la ko góor gu tedd gi ñu ziara léegi ah maa ngay wax waa kër maam Alioune Ba yi sax ne xanaa bu déwénee ñu jagle la ko Serigne Alioune Ba waaw ak ñu mel ni moom rek ah xëy na du ñàkk itam buñ fi ñëwati mu gën a yaatu tuuti waaw ah ñooy man fi julleendoo baax na su si mënee xadaraandoo baax na su si mënee wasifaandoo baax na ah ba nu xam ni rekk na mu nu lewee ñu di ko defee Tiwaawan noonu la ñu lewee ñu mën a ñëw defee ko fii parce que sant naa yàlla lenn mooy barab yi may teg sama tànk xam naa ni kenn duma fa fekk ne ma fii loo fiy def ah te barab bi ci la bokk moo tax bu may wax gestuwuma kenn wa ñaaruma sama làmmiñ dama xam ni njabooti kilifa gu baax gu sunu xol nangul moo fi tëdd te yéen itam la ngeen man yéen ngi koy def te man miin naa leen tax te sama tànk yeeg ngir yàlla góor gi Bachirou Lo yàlla yàlla yokk leeram ah nu ñëw fi nag di nuyu sunu xalifa di Serigne Pablo tabarakallah jël na kàddu e man waaw lu ma neex ci njabootu maam Samba yi nag mooy dañu sempal waaw dañu simple euh, ku ko def ci jamono bii rek bu fitne dee fukki itam mën naa am juróom-ñaar yi rëcc nga ko adduna bi li leen sonal mooy lu ne di seen soxla lu ne di seen bëgg-bëgg hmm? ah xam nga Seydil Hadj Malick ba mu wutal yu soxnaam njëkke ah naa la wax tuuba ilallahi taayibina karamatan min allah li taayibina karamatan leen ne leen bu ngeen di wut lu leen jariñ ci seen dund seen dund di leer di di jikko di teranga jigéen nag

waaw ah, dama leen maa ngi leen di woo ci ngeen fekki seen njëkki waaw pour wax la ni la ah ñoom ah, ya ah, eh? ya ya fi ñu yegg ak seen borom kenn mënu ko passé la ñu am yëpp sédd nañ ko yàlla ah su ko defee wat ca watit ba loolu la njaboot gi topp ah yal na yàlla saxal leen ci ngeen amee seen ñaan dese seen leer dese seen cër waaw mu ngi fi ndax jataay bi xaal bi fii nee ku nu wax ni ñoom ñoo tëdd fii daa ko nangu waaw ndax ah. bu woon rek bu dul woon fu mel nii rekk coow li bari coow li bari gédoo boo ko xam gédoo ma ko sañ gédoo ma ko man waaye ñëpp ngi ni tekk rek yàlla xam orma bi barab bi laaj ngir ki fi tëdd ah.